di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen balu àq di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii di ñaan suñu boroom mu nanguñu ci suñu jaamu yàlla yépp di ko ñaan mu jéggal suñuy bàkkaar di ko ñaan ci ak mbaaxam mu sàmmal ñu suñu kilifa yi yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha te yokk ko mu àggale ay naalam yépp ñu dellu si waat rek ci fàttalente ñu bëgg a fàttali gi ci dëkk bii di orma ji nga xam ne dëkk bi am na ko te orma jooju kat yu bare bari dina ko wane doonte sax am na loo xam ne mënees koo xam waaye bari na yu tax kenn ku nekk war koo bàyyi xel bu la yàlla baaxee ci nga bokk ci ñi fi ñi fi dëkkal nga xam ne ñu ngi am nga nee luñ dëkk ak sëriñ bi war dañu gën a bàyyi xel bu baax a baax orma jooju ndax yi tax dëkk bi am orma yu bari la yoo xam ne bokk na ci li ñu ci mën a xam rek mooy li taxoon sëriñ bi sanc ko ndax sëriñ bi kat dëkk bi bi ñu koy sanc dafa waxal boppam ne daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi rek moo tax mu ñëw fii ci Touba ngir mën fee jaamu yàlla ngir mën fee dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir man fee liggéey lislaam ngir mën fee yar ñi nga xam ne ñoo ko jox seen bopp mu war la a teg ci yoon wu leen di tax a texe tey di leen tax a texe ëllëg waxoon ne biñ fi ñëw ñaar rekk ko fekk mooy ku yàlla rekk ñor ak ku àdduna ñu war a ko jëfandikoo yàlla waaye ñaar yooyu waxoon na ne kenn jaaxale ko ci ñaar yooyu ndax ki yàlla rekk yow dana ko teg ci yoon woo xam ne bu ko wàccul dina yëgg ci yàlla ki àdduna ñor it dina ko jox àdduna waaye kooku bu ëllëgee la du cëram ba muy séddoo nee na bu mu ko bu mu ko xelal ndax loola taxu ko woon a jóg yàlla musal ci bokk ci ñoom ko xam ne àdduna rek moo leen tax a jóg kon mu doon pàkk boo xam ne fekk fi woon dara suñ borom tànnal ko ko mu fàkkal ko boppam ngir jaamu yàlla wax ne barab la boo xam ne suñ borom moo ko fi indi ngir tàggale ko lu ko mën a gàllankoor ci yoon yi nga xam ne ci la suubu ngir dem ci yàlla ak yóbboo ci yàlla ci Matlabul Fawzayni muy sant suñu borom subhanahu wa taala ci indi gi ko indi ci lépp boo xam ne ca la ko dàqale lu koy gàllankoor alhamdulillahi alkarimi dullana ala ishtigali bi furudin wa sunan wax ne shakartuhu bi annahu qad saabani li watanin bihi laqa maa aqali kon ñu ngi sant yàlla ci nekk ci alquran nekk ci ay farata ak sunna waaye suñu borom indi ko ci dëkk boo xam ne nag ci la ko dàqale ñu koy gàllankoor waaye ñu indee ko fii ci dàqale ko mboolem ay ayib ak i gàkk-gàkk waaye def ci moom mboolem jikko yu rafet mboolem melokaan baax yi تحلي من بعد ما حزب بالتحلي kon ñu ko fi indee mooy xam-xam xam buñ sëriñ mu nekk fi nga xam ne ñoo ko njëkk a topp ci anam goo xam ne ñëpp gis nañ jeexit def ci ñoom dëgg suñu boroom def ci ñoom ak njub def ci ñoom jikko yu rafet def ci ñoom fonk jaamu yàlla ku xam-xam mboolem melokaan yu baax yi gaa yu baax yi melo woon sëriñ bi yar ci ñi mu àndaloon ba tax Cheikh Mouhamed Bachir sax di wax ne boo demee ci xuqa ñi sëriñ bi wax da cee def li ñuy wax tawriya nga xam ne day mel ne ñeneen lay wax mag ñi jiitu woon waaye nee na melokaan yi mu ci tudd yëpp buñ seetloo ñi mu àndaloon melokaan yooyu mi ngi ci ñoom kon mu bëggoon dëkk bi lool bëgg koo xam ne siiw na ñëpp xam nañ ko loola feeñ ci ñaan yim ñaan ci dëkk bi muy ñaan yoo xam ne lépp luy tax nit ki texe ci dundam dunduk tayam texe ci dunduk ëllëgam sëriñ bi ñaan na ko sëriñ bi ñaan ci dëkk bi ñaan yoo xam ne bokk na ca ñaan suñu borom tàqale dëkk bi ak lépp luy balaa wala lépp luy musiba wala lépp luy mbas waaye def ci dëkk bi dund gu sell dund gu teey lépp lu ñu fiy jëfandikoo mu nekk lu sell lu laab lu teey lu dagan ñaan fi kaaraange waaye ñaan fi lépp lu yiw woo xam ne mi ngi ci àdduna ak wet gum mën a féete suñ boroom bi jël ko ko indil ko ko ci dëkk bi waaye mu ñaan dëkk bi mu nekk dëkk bi yàlla gën a sob dëkk bi yonente bi sallallahu alayhi wa gën a sob wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayyib shurbaha wa uklaha waj'al harimana hariman amina wa kun bi hifzihi kafilan damina wajbulaha alkhayra min aljihati assitti wakfiha anil afati waj'alhu ya rabbi ahabba maskani fi ardina laka walil mahisani ak yudul yooyu ci ay ñaan yu baree bari yuy wane ne kat kon dëkk bii yëmut ak yeneen dëkk li fi sëriñ bi ñaan jar na kenn ku nekk bàyyi ko xel te nu xam ne suñ boroom li ko ko sëriñ bi ñaan may na ko ko lii sunu taxawaay rek mooy sabablu ak nekk ci yoon wi tax ñu mën a jariñoo أشهد أن لا kon bokk na ci li tax ñu war a gën a dëkk bi dafa doon dëkk boo xam ne xol yi taalibe yépp da cee aju fu ab bi mën a nekk moo xam ci biir dëkk bi bu sab taalibe dëggoo loo dégg ci dëkk bi danga taxaw bu dee lu baax la nga sant ci yàlla bég ci waaye boo ci déggee safaan mu naqari la lool loolu nag xoli ay millions ngi doomu aadama ñi ngi aju ci dëkk bi kon loola war naa tax ku nekk bàyyi xel dëkk bi ci lépp loo xam ne man nga ko ci sàmm orma ji mu doon dëkk boo xam ne it yemul rek ci ñi nga xam ne ay taalibe lañ waaye képp ku di jullit dëkk bi bëgg nga ko ci sab xol bu sa jullit dëggoo da nga xam ni mu niñ ko sance ak li ci boroom bëgg ak lim ci namm ku ne xam na ne toll nañ ci jamono boo xam ne eh, bu bari ab coppiku la jamono joo xam ne sàmm fi sa diine sàmm sa paspas pas sàmm sa jikko sàmm say valeur yombatu fi ndax ñi nga xam ne gëmuñu diine di dox ci li koy woyefal ak di ko néewal doole te suñ boroom jay leen dañoo bari ci àdduna bi ba tax na barab bépp barab boo xam ne ña nga fay sàmm diine barab booba danañ ko dañ ci jéem ay pexe ca Tuubaa bokk ci barab yi nga xam ne tatala ju suñ boroom def mu bokk ci barab yi nga xam ne dañ fi sàmm lislaam di fi sàmm valeur lislaam di fi sàmm njàngaleem lislaam loole nag tax na jullit yëpp yi nga xam ne xam nañu ko te seenu jullit dëggu def nañ ko seenu moomeel yooyu yëpp nag bu dajee kon lu mel noonu ku ko am war nga ko bàyyi xel war nga ko wormaal bu baax a baax nañu koy wormaale it sëriñ bi ci boppam moo ñu joxoñ yoon wa ndax moo ñaan li mu fi bëgg suñu boroom defal ko ko fi waaye moo ñaan it suñu boroom dàqal ko li mu fi bëggut kon ku fi nekk ci diggante ñaar yooyu rek di góor góorgóorlu ci li sëriñ bi bëgg waaye di moytu li nga xam ne sëriñ bi bëgg ko fi loola moo jiitu ci nit ñuy ormaali dëkk bi te sëriñ bi boo demee ci Matlabul Fawzayni wax na fa yu baree bari yoo xam ne bëgg na ko fi ñaan ko fi suñu boroom mu bokk ca ku fi nekk pas-pasu ak bëgg ngërëmul suñu boroom bàyyi la fi ndax sëñ bu ñaan képp koo xam ne suñ boroom taxu koo jóg kooka mu ñaan suñu boroom dàkkul ko kooke wal takfi anni kulla shaxsin lam yurid wajhaka fasrifu sarian is yarid waaye ginnaaw pas-pas boobu nga mooy jiitu te mooy gëm-gëm bi la ca top mooy jéem a xam li war ci sa diine jéem a am xam-xam ba noppi jéem a jëfe xam-xam boobee loolay bi ñaan na ko mu nekk dëkk bu ñuy xamloo dëkk bu ñuy génne ci ak lëndëm tàbbi ci ak leer wajalu ban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi wax ci lu baree bari ci wàllu xam-xam waaye xam-xam it sëriñ bi daana wax ne lay meññati xam-xam mooy jëfe ga moo tax li sëriñ bi bëgg it mooy ku fi nekk jéem a xamlu ca la nga xam nga di ko jëfe wajal binaiya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi jëfe ga nag mooy da koy dëppale ak sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sëriñ bi ñaanaat fi loo xam ne it lu mat a bàyyi xel mooy nit ki mën naa baax yiw waaye du jéem a defar du jéem a yéwénal sëñ bi nag dafa bëgg ku fi nekk sax ci di defar ak di yéwénal moo tax mu ñaan wal tudxilil musliha fii yadi wa fii daari wa sabbitanhu bil haadil wa fii lool lenn la ci nga xam ne ku fi ne war nga caa góorgóorlu muy dëgëral sa pas-pas ci bëgg lu baax waaye jéem a sax ci di wut xam-xam di ko sàkku waaye di jéem a jëfe la nga xam waaye boole ci di defar defaru di defar mu bokk ci melokaan yoo xam ne it ku fi ne war moytu ndax sëriñ bi dafa ñaan suñu boroom musal ko ca bokk na ca mooy tooñ waj'alhu maskana xurujin min zulam li nuuri wakfi anhu kulla man zalam tooñ nag lu bari la nit ki dana tooñ boppam nit ki dana tooñ moroomam bindeefam nit ki dana tooñ boroomam waaye mu ñaan ku fi nekk it bañ a xotti ormay diine bañ a ci njàngaleem lislaam ak bëgg-bëggi lislaam mu ñaan ne wa jannatan li saalikin muridi waaye wa junnatan an haatikin maridi bokk ci li nga xam ne ku fine ne war koo moytu muy nekk ci lu amul njariñ ay caaxaan ak mpo ak loo xam ne topp sa bànneex ak sa bakkan la wal takfina al hawa wa ma la yaani wa bika da ban aghnina ya muni kon kenn ku nekk war nga bàyyi xel ne war naa góorgóorlu ci li fi sëriñ bi bëgg te mooy sax ci ak njub sax ci sàkk lu baax sax ci yor melokaan wu baax sax ci jéem a jikkowoo jikk yu baax waaye sax ci ay teggini lislaam ak yarub lislaam waaye jéem a moytu lépp loo xam ne ak tooñ la lépp loo xam ne jalgati la mooy xam tooñ boroom jalgati lépp loo xam ne dafa juyoog jalgati lépp luñ fi luñ fi lu fi sëriñ bi bëgg nga def lu wuteeg loola loolu ci jalgati la bokk ci tooñ la bokk loolu it képp ku fi nekk war nga koo moytu loolu nag nga xam ne moom la sëriñ bi rëdd joxoñ ko ñaan ko mboolem njabootam gi ñi ko fi wuutu nekk ay xalifaam ak njabootam gi mu yar tàggatal leen boppam ñoom ñëpp ci yoon woowu lañ jaar bàyyi xel dëkk bi di ko war warmaal di góor góorlu bu baax ci lu koy lu ñoŋal orma ji ci sax ci ndigal yi ak moytu tere yi ak di ko moytu loo loolee nag Cheikh Mouhamad Muntaka mi xafisahullahu taala wa ayyadahu wa nasarahu moom la sax di fàttali di ko digle di ci soññee waxtu nekk muy soññi ñi nga xam ne suñ borom da leen defal tawféqi dëkk ak sëriñ bi ak ñi nga xam ne dañ koo fekk si kenn ku ci nekk war a xam war a góorgóorlu xam cër bi la yàlla defal xam xéewal gi la yàlla defal nga am melokaan ak doxaliin wu méngoog sant xéwal googee loolu waxtu nekk mi ngi koy fàttali di ñu soññ ci ñu góorgóorlu di ñu soññ ci ñu sax ci ndigal yi te moytu tere yi loole nag kenn ku nekk kon war na la sàmm or may dëkk bi kon ñépp la war kenn ku nekk am nga ci sa wàllu bopp ñi nga xam ne ñooy ay boroomi kër doon ay kilifa yoo xam ne dañoo am njaboot bokk na ci seeni warugar ci sàmm ormay dëkk bi mooy di ca yar njaboot ga di leen ko xamal di leen ko fàttali balaa keneena a saytu ndax ñi ngi xotti orma ji wala xotti wuñ ko yow mii boroom kër nga njëkk a sàmm sa njaboot nga njëkk leen a teg ci yoon woo xam ne seen xel du nekk ci sax am doxaliin wala melokaan wu wuuteeg li sëriñ bëgg ci dëkk bi kon ñi jiitu ci ñi war a sàmm orma ji mooy ñi nga xam ne suñu borom defal na leen xéewalu dëkk fi ñu war a bàyyi xel niñ fi war a dëkke jéem koo xam waaye di ko jéem a xamal seenuk njaboot leen ci jéem a yar di leen ci jéem a teg waaye ñi nga xam ne it ñoom la yàlla teg ci bopp réew mi nga xam ne lépp luy njariñul réew mi ñoo ko war a sàmm ñoom it ñu xam bu baax ne dëkk bi lu yàlla defal réew mi la muy lu àdduna bépp soxla bëgg ko suñu borom defal ko Sénégal kon waa Sénégal ñoo ko war a sàmm orma ji nga xam ne orma ju Tuuba am moomeelu réew mi répp la moolee moomeelu julli la kon képp ku fi nekk di kilifa war ngay dox ci luy sàmm ormay dëkk bi ci anam ga nga xam ne moo war ci anam ga nga ko mën a taxawe ci yaxal ko fexe ba nga xam ne dëkk bi moom orma ji sàmm ko dafa bokk ci sàmm ormay réew mi sàmm orma ji dafay bokk ci sàmm li nga xam ne mooy sarti réew mi loole nag rolu wala taxawaayu ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg ci bopp réew mi ñoo xam ne lii ak moomeel la guñ war a sàmm sàmmal ko julit yëpp sàmmal ko Sénégal gépp mu doon fu ñuy ñëw fu ñëw foo xam ne kenn du fa xotti ormay li nga xam ne mooy ormay lislaam te mooy li fi sëriñ bi bëgg ak li fi sëriñ bi bañ lépp ñu sàmm ko ndax mooy li lislaam bëgg ak li lislaam bañ rek waaye ñi nga xam ne it ay kilifay yi diine lañu am njaboot gu leen topp ñu war a sax ci di leen ko fàttali di leen ci soññ saa bu nekk ba kenn ku nekk ku ne am nga kilifa kilif sa kilifa waxtu wu nekk mu la cay soññ di la ko fàttali ndax loolu kat ci la suñu njariñul tey nekk ci la suñu njariñul ëllëg nekk kon ñu ngi naan suñu borom subhanahu wa taala mu saxal ñu ci li borom dëkk bi bëgg ci dëkk bii yal na suñu borom saxal yal na seen suñu borom musal ci lépp loo xam ne day xotti or dëkk bi ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yàggal fi Cheikh moom mu lim lim bëggal yéene nu ko suñu borom defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi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 الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق والموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم وقال تعالى في كتابه رب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وسيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وذرية المؤمنين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس القرآن منبع العدالة في كل زمان ومكان وإنه لتنزيل من حكيم حميد أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما فضل نبيكم دينكم على سائر الأديان إلا بمعجزة الدهور وآية العصور كتاب الله القرآن فإن جعلتموه بين أيديكم كان لكم قائدا في الآخرة إلى المغفرة والرضوان وإن جعلتموه وراء ظهوركم كان لكم سائقا في الآخرة إلى الردى والنيران كيف لا هو اللؤلؤ والمرجان ويامرنا بالبر والصلة والأمان وبالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى حقه والمسكين والمدارات والمدارات مع الأقارب والجيران وينهى عن الفحشاء والمنكر والعصيان وفي الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وفقنا الله جميعا لمتابعة الحق حيث كان وأجارنا من فضل بفضله من متابعة النفس والهوى والشيطان آمين الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة ونعمة ونعمة الأخوة بالإيمان وصيرهم بين الفرقة كالبنان والبنيان والصلاة والسلام على على نبيه الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وذي الرضوان والتمكين أما بعد فيا أيها الناس إن فضيلة الصبر من أعظم الفضائل ومنزلته عند الله من أشرف المنازل ومن كان صابرا فهو مؤمن كامل وينال ما لم تنله الأوائل وبه فتحوا البلاد وأظهروا الإسلام وقهروا نفوسهم وصاروا أقوياء وعلماء وأغنياء وسادة الدنيا والدين فبالصبر يجد كل إنسان في موقف القيامة ما قدمه من صالح الأعمال في الديان فيتجلى الله فيتجلى له الله بالرحمة والحنان ثم يصب عليه الثواب والرضا ويقول سلام عليكم طبتم يا أهل الإيمان ادخلوا الجنة بالأمان وقد رضيت عنكم بما صبرتم من الامتحان ورضي عنكم سيد ولد عدنان صلى وسلم عليه الكريم المنان يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى وجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء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 وتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله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 allahu akbar asalaamaaleykum.